ñu ñëwoon fii si dalu Serigne Saliou Thioune Seydina fekk la fi ñu xam sa diggante ak Seyd ak Serigne Saliou Thioune. waaw Serigne nag tey li ko jiitu mooy Serigne Béthio baayam jooju laa soppoon lool naw ko ci yoonu murit dem ba tey lii ñëw àdduna gudd tànk ba ma dajeeg doomam yi nga xam ne dama leen a gis rek sopp tey ñoom gisuñu ma sopp ma man maa leen gis sopp leen moo tax tey may féddali sama kóll rek ak ñoom ca seen baay Seydina nekk sëriñ bu oyof bu baax bu yaru ku tabe ku gore Seydina cuun ma naw ko lool a ah, mi daal di cuun sëriñ Saaliw cuun xaadim ñoom ñëpp maa ngi leen di bégee mënumaa lim ñëpp waaye Seydina cuun moom yàlla boole na ma ak moom boole boo xam ne jamono ji ah na leer Sénégal ni dama ko bëgg trop sax hmm. barke sëriñ Maam Kétiop fu mu mi toll nii feebar bi lal partout dans le monde nga jóge ba États-Unis màggal Serigne Bamba bi képp la indi bi nga ñëwee Touba gis mbooloo bii si Touba ban mbégte nga am. waa màggalu Serigne Touba gi moom teral na ma jóge bi ma jóge États-Unis ñëw rëccuwuma ko ndax tey xamante naa fekk nit ñu am valeur xamante fekk nit ñu baax tey ku ne dégg na Basirou Ka jëwriñ universel bu Cheikh Béthio bu Seydina Thioune bu ñëpp tey fii laa ko xamee ci màggal gi laa xamante moom te réccuwuma ci dara mu nekk loo xam ne tey sëriñ bi moo ma koy fayee ndax bi may ñëw fii dama bàyyi liggéey boo xam ne su ma delluwaatee États-Unis duma fa liggéey ndax màggal gi ndax dàq nañ ma barke sëriñ bam loolu fii laa koy waxee tey bi ma fi jógee yàggul màggalu daaw laa fi ñëw toogoon fi cinq mois dem bi ma ñaanaatee permission dañoo bañ ma ne leen màggalu Serigne tubaa dee mooy tax ma bañ cee dem waaye damay dem ñu ne ma boo demee boo ñëwee doo fi liggéey ma ne leen ndokk tey da ngay leer ni tey toog bi ma toog fii su ma delluwaatee États-Unis beneen liggéey laay liggéey waaye du liggéey bi ma paase ndax boobu moom dàq nañ ma ndax màggalu Serigne Touba gi barke laa ilaha illallah sëriñ tubaa moo ma jaral lu ne góob ma ku sëriñ tubaa Touba Xaadim Rasul ndax moom rek laa bëgg. Hmm. te réccuwuma ci dara bi ma ñëwee ba tey nit ñu baax ñaa ngi may bëgg gis naa sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa loolu rek ndam la looloo ma gënal Amérique yëpp looloo ma ko gënal sëriñ Muntaxa ma gis ko moo ma gënal bien yi nekk États-Unis yëpp pour ñu jox ma ko bugguma naa gis sëñ Muntaxa gis naa ko mu reetaan ma ma reetaan ko loolu rek xéwal la gis naa sëriñ Saliou Thioune mi nga xam ne tey daj naa ci moom lu ne pour ñu jëmmal jëmmam ji xam ne moom rek a fi ne nag gis neen tamit commencement bi yow yaay ñëkk taxaw. dëgg la ànd ak Serigne Saliou Thioune mbir yi bu mu méttee. soo gisoon ma defoon loolu. Hmm. xam ni ki ànd ak moom ku ànd ak moom doo dellu ginnaaw muy sëñ taxaa ba Bassirou. kooku moo ne ànd leen ak Serigne Saliou Thioune te kon kooku man su ma waxee dañu maa dooleel rek kooku tey moo ne sama ginnaaw. tey lu may wax dama koy ñeme ragaluma ci tus te kenn mënu ma ci dara ku dul yàlla suñu borom ndax Serigne taxaa ci boppam moo wax ma jottali Ketchup wax na solo ma bàyyi la nga tàggatoo xam naa ne instant da nga xam tàggatoo tàggatoo ma de loo bëgg léegi ñu wëyale tàggatoo ma dama fee xamante kilifa yu baax kilifa yu am ngor kilifa yu am diine kilifa yu ñuy dudd ci dëkk bi man du ma tudd ko amalul sénégalais yi njëriñ wax naa la ko ba tàyyi nee naa la yoral ay milliards boo amalul sénégalais yi njëriñ sama senaat bi doo ci génn du la tudd du ma la fësal li jëntiwu ma la da ngay respecté yi fonk leen jox leen cër di dimbali jaamu yàlla yi yor say milliards toog nag di wax di rëy làmmin kooku lijjantiwu ma ko boo yoree sa xaalis wala nga yor looy jàppale da nga koy jàppale doomu aadama yi. tey dama fi xamante kilifa boo xam ne fu ma romb jeunesse bi yëpp fu ma romb ñu ne ma Ketchup jàppal ma kii Ketchup jàppal ma kii tey dix personne ne la Ketchup jàppal ma kii ci benn cinq minutes kooku jar naa jàpp muy Basirou Ka nañu ko dooleelaat jàppale ko borom Tiwaawan pël Sénégal la nekk. nekk xale la xale bu ndaw di jàppale jeunesse bi ku soxla liggéey jox na la ko ku soxla foo dëkk jox na la ko ku soxla loo lekk jox na la ko ku soxla naan jox na la ko te xale bu ndaw la buy demee ay bien am kon kooku tey bu ma dix personnes jàppal ma kii dama naan man lii lan la te man jeunesse bi laa fi toogal jeunesse bi laa gëm gëwuma ku gëmul jeunesse bi Sénégal boo xoon nawloowul sax bu ma la rombee ay xeer laa lay teg du ma la sax lijjanti tey man boo nawlawee Sénégal nag dama lay yëkkati fu ma toll dama lay fësal te Bassirou Ka bokk na ci jamono ji ñi may fësal ba ñu fës ndax ay doomu aadama ñoo ñëw ci man ne ma jàppal ñu kii lii la ñu defal lii la defal dégg naa Tivaouane Pël taa sax du ko def ndox fu am ndox mu dugg jël ay pompam rayante dimbali la te kenn du yëg am na yenn teraanga yoo xam ne daa war di fës pour ñeneen ñi nga xam ni dañoo yor seeni i koppar yor seeni i bien toog ci ne duñ dimbali benn doomu aadama di ci roy di xam ne àdduna bi daa jeex ba pare rek am jëriñ alal dañu koy partagé waaye yor ay milliards yow ak say doom rek ngeen koy lekk da ngay dimbali ñi nekk ci mbedd mi par tuuti alal dafa sax ci xol nag waaye yàlla ni mu la ko joxee booy dimbalee nit ñi rek noonu la xaalis bi di ñëwaatee Basiru ko daa bokk si ñooñu maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm sama xarit sama doomu ndey Ndoura Balde Abdourahman màggal gi bu melee nii tey ci man ginnaaw yàlla yonent bi moom la lépp defal na ma ko ba ñëpp naw sama dal di gërëm Al Aziz Ndiaye bu baax sama mag jooj di gërëm Marcel Diagne Matar Subatel di gërëm Pape Diouf dañu maa dooleel ba nga xam ni tey namuma dara di gërëm Mor Oussar taalibe Cheikh Béthio yi nawloo ma fonk ma yëkkati ma maa ngi mel ni prince fii janatu maa ngi mel ni maa moom janatu fu ma turne kéccob kéccob yëkkati ma dooleel ma te duma kenn as ndongolaa buy taxawaalu rek duma dara mais ñu jël ma def ma dara far force def ma kilifa def ma patron def ma borom alal te ma dërëm Basirou Ka dama ko nuyu dama tiit biñ nemee ki ma njëkka a wax jàppaloon Basirou Ka bi ma ko tegee loxo damaa fonne man ay mool lañu ma doon dóor ndax ni mu ma nuyoo bi mu ma nuyoo dama damaa fecc te damaa toog fii Seydina Thioune ñu ñëw loolu seede baaxul fii laa toog man du ma waxal kenn yàlla ngi lay gis gisuma fii laa toog biñ ma ko présenté ba pare ay taalibe Seydina Thioune ñëw indi di lis ngandi liste lañ indi ne ko Seydina Thioune lii moo fi manqué léegi-léegi lii Seydina ne indi leen liste bi balaa ñuy indi liste bi Bassirou Ka këf na listi bi dugal loxoom ci poosam génnee lépp ne dem leen lu manqué ci kër gi def leen ko xoolal loolu ne defuma ko ngir kenn sëriñ Touba rek a tax te lépp lu mu lay defal dégg naa danaan la Serigne Touba rek a tax ko kan moo koy téye. kenn du ko téye Ketchup mënu ma toog ak yow ba nga dem te du ma la laaj soxna Aida noo gisee mbirum soxna nee naa la ngeen bàyyi di ma laaj loolu loolu li ma ciy wax wax naa ko. dama bëgg nga waxaat ko fii. non aw ma man man bu xam ma ci kan laay wax kuy jëfee ndigalu Serigne Touba Xaadim Rasul man Serigne Touba ma ñor nee naa la tey sama yaay jàngaluma ñàkk a ndigal moo tax noonu laa yaroo ba kuy jëfee ndigal rek laay àndal ku jëfewul ndigal nag yàgg ventilateur bi laa yemale dama koy taal di ko fay sëriñ Tuubaa rek laa salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu fi kulli sërin wa fi safar xamaani